فلقد آتينا ماذا كان ذلك في خلافة وما منعنا أن نرسل إلى أن نذهب بهذا الدين على الدين الكريم على ذا فمن ترياك منهم فإن جعلم جزاؤكم جزاء موفورا والصبر حرام لي كما الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم زاده هو الذي يحيي ويميت تبارك الذي جعل في السماء ما تعجلنا بكل ما هو وإنا لا نريد النكرة ما نريد الأخلاق فلا منا الكريم وقائل أن إبراهيم أدلنا إلى يوم ولا ولا نكر الذين إسرائيل قال فرعون وما رب العالم قال رب السماوات والأرض ما بني كل مؤمن قال لمن حول على نفسه قال رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال فأتني إن كنت من الصادقين فألقي أصابع إذا أشوف فأنما والناس أيده إذا يبيض وأمر الناظرين قال للملأ حوله يأتوك بكل سحير عليم وجميع السحرة بميقات يوم معلوم وقيل للناس ما أنتم الخلفاء القوي قالوا ليسي وقالوا في سبيلنا إنا لنحن الغالبون الآخر سوف إذا يدعوكم ما يقوم به السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم لا تعلوا بالحق المسلمين كرما يا أرحم الروح يا ألطف اللطف يا بدأ أحراري يا أكرم الكرما يا أرحم الرحمن

dañoo bëgg la bi ba jeex ci sàkk nag ndax asu dafa bëgg mooy mboole ñu ci xeebul ma am boole ñu ci waaw baax na de bëgg sëñ Babacar ñun sëñ Babacar la ñuy nooyee maa ko si Malick ba nga boole kaare bi ñun da ko jàngal ko ko bengal fam ko teg rek foofu la wala nag asuturé yal na yàlla guddal fanam yokk ay cëram bàyyi ko ci suñu kanam ndax tabaar fakal la macha allah daf ñoo ji lu baax boo duwee tey ñu ne ci waañ wi moo ko moo ñu ko jaral dafa xër moo ñu ko ji alalam ñëpp bëgg ñëpp tabaar fakkan la duñ ni buleet duñ lekk bàyyi ñu du xotti bu mu sol ko ba mu ràpp te te ñun soluñu soluñu wallaahi lu mu sol moom la ñuy solal lu mu lekk moom la ñuy lekk te kat li ci gën a neex jàmm ji. jàmm ji waay ku la mayul jàmm du la may dara. du la may dara am na jàmm am na salaam moo tax muy def takkusaanu nabi. waaw ba bëgg nag. waaw mi ngi tàkk de. bëgg sëñ Babacar Si may ko. bëgg sëñ Issa Touré ni lay maa la ko wax kii mooy soppay sëñ Issa Touré. waaw gis na bii dañ koy ñaan def ko ay ati at ndax nag Mante loolu lu téye ku baax la. ku bëgg doomu aadama ku bëgg dimbali doomu la joxee loxo bis du ko yëg tànk tuddoo ko kenn du ko xam mu nag ya asoon ca yoonu màkk nga asoon ca tabaski ma nga ca tam ma nga ca màgg ma nga ca gàmm samba aali nag nga xam ni jàppale ko ak képp ku asu am asu daal bisam bi turee na ko jig te yàlla na ko def ay at ci borom tur bi ndax nag man nga xam ni ne maa ko joxel carte yi yaa biige Thiam yàqu ci dara ak Aminta Niang ak mère ak ñoom Aïssata Sall ñoom kii gi nii ñu tëdd sax loolu de Gouléb Diome Astou Ngom ñun ñëpp ci waañ yal na ko gën a mën yal na ko yàlla lafal cat yàlla guddal fanam yal na yokk ba mel ni sooroolu Touba yal na yokk ba mel ni sooroolu Tiwaawan ba yal na ko yàlla su ko càmmi lu baax loolu moom itam yàlla wàcc ko na suñu assuré mi moom itam wàcc ko moom ba mu ràppal suñu suñu càmmi ràppal ko suñu càmmi loolu moom seetaanu jigéenam wax dañu a amul ñoom daal dañoo baax rek dañ leen a ñëpp la bëgg su ne Samba la ndax Samba bañu ñu ko baba asu ko ñu la bu lay jox du ko yëg da lay ngoo ba ca kaw la man mi nga xam maa ngi def ko ba ko ko neex ko ci bëre dana ñu bàtt du pour wax kii rek dara dafa nekk nit ku yàlla baaxee rek moo ko baaxee rek bu baax na ko baax

moo ñëw ci koñ bi rek boole ñëpp ñu nekk benn lu baax lu ne mu indi ko si koñ bi lu rafet lu ne mu indi ko si koñ bi moo tax ñun ñu takk ñun ku nekk bàyyi sa liggéey ñëw toog ñun ñun ñooy ASG junior ñoo ngi nii nag toog ba jusqu'à la mort ba heure bu paree rek ñu doog a dem xanaa neex na waaw média bi nga xam ne lu ñu yëngal ma jamono tey taxaw keroog bañ na daa ñëw toog jël taam jàkkaarloog sama goro di waxtaan ñoom lu neex ak sama nijaay sama jabaram di xeele kon tey dañuy ñëw toog jàkkaarloo ñoom defanteeg ñoom lu baax. bu ñu koy ñaanal sama kàllaama bi yàlla guddal ko fan rek may ko gudd fan ngir gërëm ba xale yi di ko yóbbu màkk daan as na mu ne ko ba mu toogee ba tey jubul na. waaw dëgg yàlla loolu sax rek lañ xam ak jaam ak salaam ñu koy ñaanal doomam yi di ko yóbbu màkk di yóbbuwaat ci bàyyi gudd fan ak wér gërëm ba lañ koy ñaanal. nii muy féete mu koy féete ay at. waaw it ci boobu ay cité bi ko aal. kattan yàlla ñu jàngal. jërëjëf ñu ngi koy ñaanal baax a baax. waaw. góor gi ne law kaana baabuka laa yatiidu ita bil fama du'i غفورا كل أوزاري لو كان بابك لا يأتي ذو إثم فما دعيت غفورا كل أوزاري أوزاري خاطبت ربي قطار بل لا يليق بنا فاغفر لعبد من العذاب حيان لو كان بابك لا ياتي ذو إثم وما دعيت عفوا عن كل أوزارك أوزارك وفي كتابك ربي إنما صدق ربي للفقراء من دون إنكار ربك لا ياتي ذو إذن فما تعيت غفو عن كل أوزاري إني فقير ومسكين maa ngi leen di fay. asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokki jullit yépp kenn ku nekk maa ngi lay nuyu xanaa di sant yàlla rek di gërëm suñu borom subhanahu wa di sant yàlla sant nañu yàlla di wax alhamdulilahi rabil alamin wax dëgg yàlla bés bi yegsi na ndax yaa ñëwoon nga filme ñu avant première mu jàll lool au niveau national international léegi nag tey la bés bi macha allah maa ngi souhaité ñëpp di fi ñëw bienvenue di leen wax ne ñëw nañ ci seen bés bés bi du bésu Astou de bés bi du bésu kenn bésu suñu borom subhanahu wa la bésu yonent bi sallallahu alayhi wa la maa ngi ni toog ak samay sët di ñaan yàlla ñu commencé ci bisimilahi rahmaani rahim yeggalee alhamdulilahi rabil alamin jërëjëfati waaw wallaay xanaa di leen jaajëfal rek ndaxte ñi si waañ bi samay xarit lañu dama daan jël traiteur muy togg di àndi ren ñu ne ma ñoom ñooy togg ñooy yekk donc ñoom awma seen yàlla rek laa leen di bàyyee ak borom bés bi yàlla na bés bi defaru te borom bés bi defaral ko boppam ci barke Seydouna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moom moom bésam de kontaan rek ñi ci kaamil bi samay mbokk jaaxanke yi ñoo dirigé kaamil bi ñooñu nag ku leen xam xam ne waa Touba jaaxaa lañu ay sëtu waliwu lañu ay nit ñu baax lañu ndaxte jaxa bi lañu sant ñoom waa Guinée lañu ñoom waa Kédougou lañu ñoom waa Tamba lañu ñoom waa Taslima lañu suñuy mbokk yi rek ñoo fa nekk nekk ay nit ñoo xam ne dañ leen di siyaara kontaan naa lool di kontaan nit ci ñi may jàppale ndax benn lam du ma sa yëngu te samay rakk samay mag samay xarit sama yaay ñépp jàpp nañ ci sama yaay ngi mag la waaye mi ngi sama wet toog darma toog samay dëkkandoo samay doom samay rakk ku ci nekk boo ànd boo ñëwee jàpp si rek man damay ànd ak kersa sax jërëjëfati waaw sama borom kër nag moom macha allah mention spéciale waxoon naa ko ci kii bi maa ngi koy waxaat kooku aw ma bàyyee naa ko borom bi laawoo na ko yàlla fayal boppam. ci barka Seydouna Mohamed sallallahu alayhi wa jërëjëfati waaw. dëgg xanaa keñ di sant di gërëm xanaa keñ di sant di gërëm Chérif Ibrahima dara Atijani di sant di gërëm sëriñ Issa Touré. mi nga xam ne mooy responsable moral sopp na bu bi ma jokk maa ngi nuyu shérif di ñaan yàlla shérif yàlla na ko fi yàlla bàyyi lool mu ànd ak wër ay waaye na ko ñépp wax na ko ñépp wax ndax li muy def ci diine bi rafet na set na ñi ngi fonk tam sëñ Issa Touré mi nga xam ne xale yi ku bëgg a tëra di moom moo lay tëddal tër bu baax di la jàppale xale yi fi bëggoon a def yëfu woyu yëpp sa sëñ Issa redressé na leen ñi ngi koy sant mooy borom kel sant nañ ko gërëm nañ ko waaye lu may sant nag jiitalaat ci rek sama borom kër mi nga xam ne moom moo ma jàppale moo ma jàppale moo ma aar moo jàppale moom daal laa amoon lu may wax ci bés bi jërëjëfati di la sant yow mi Seydouna Omar macha allah muy Dabakh TV télévision Chérif Ibrahima ay Aïdara Atijani nga xam ne lépp lu muy filmer direct la koy def keroog bi nga ma filmé waa États-Unis fu nekk woo nañ ma naan ma waa asalu ngeen xewle waa asalu ngeen xewle ma ne leen Dabakh TV rek moo ko moo ko def kon sant nañ leen gërëm nañ leen sant nañu yàlla lool lool ñi ngi sant di gërëm wax dëgg yàlla waa fédération soppana bi jërëjëf waaw jërëjëf

la ahjari sama doom la sama lépp la kii sama sama maam la moom gis nga sama maam bi de mi ngi mi ngi jëm si koro de maa koy nuyutee la sant kóllëre la mais lu tànn lu tànn mag jàmm am na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 بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبالله رسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا خاتم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من نسخ والنسيان أو التحريف بكلمة أو موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل إن تلاوته أو كسر أو سرعة أو زيغ اللسان وقف بغير وقف أو إضغام بغير مضغام أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همسة أو جسم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذ من كل ألحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه وعد حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعر بالشر والآمن ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلال والطغيان ونبهنا قبل منايا أنه من غفلة وكسلان أمنا من عذاب قبل ومن سعال منكر ونكير ومن إكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وآتي رقابنا من النيران ويمن كتابنا وحسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا في وسط جنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والفرقان والزبور والفرقان أعطينا جميع ما سألناك به في سر وإعلان وزدنا بفضلك واسع بجودك وكرامك يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشهادة والبرهان برحمتك أرحم الراحمين اللهم أنفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم اللهم أنفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم اللهم أنفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بهدايات والذكر الحكيم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 وارحم جميع أمة سيدنا محمد بها قرآن اللهم اجعل قرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبين وبين الناس سترا حسابا وإلى خيرات كلها دليلا وإمام بفضلك وجود كرام يا أكرم الأكرامين اللهم اهدنا بهداية القرآن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 وبالخير خلالا وبالدار دنوا وبالذات ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سرعا وبالشين شفاعا وبالصاد صدقا وبالطاء طيعا وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالعين عناعا وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواي وصلة وبالهاء هداية وباللاف وباللام إلاف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين الله بالأحزاب ما قرأناه والنور ما ترونه أبا الله بالإحسان ما قرأناه والنور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى روح أخينا فودي جحبي اللهم اغفر له وارحمه واجعله من النبيين والصديقين والشهداء وإلى أرواح وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا أصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حي من الأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم أنصر من أنصر الدين وخذل من قصر المسلمين وخذل المسلمين رب العالمين رحمة أرحم الراحمين رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في بعد الممات رب العالمين اللهم اغفرنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت رب العالمين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت رب العالمين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم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 dafa ne ñaan suñu borom yi yàlla nga mayam ma nga won ma su ma dëkkandoo ci àjjana ci àdduna fii balaa ma dem alaxara suñu borom ne ko demal ci marché bi am na benn boucherie bi benn waay bi nga dafay jaay yàpp kooku moo sa dëkkandoo mu tettale ko yoon yàlla Muusa dem xool ba ràññee waaje ba pare moo xaar bu waa ji pare ci njaayam mu ñoo jox ko loxo mu ne ko man gan yàlla la dama bëgg a dal sa kër mu ne ko bisimilah kaa ñu dem bi ñu demee mu dal ko dafa am yàpp bi nga xam ni daf ko dëpp mu nekk comme sunguf mu togg ko mu am benn màgget nekk ci njoowaan mu wàcce ko teg ko ci poojam saxal ko ba mu lekk ba suur jox ko ndox mu naan fomp gémmiñam delloo ko ci jowaan bi mu dooru togg beneen togg woo yonent Yàlla Muusa mu ne kaañu xéewal yonent Yàlla Muusa mën ne ko duma mën a bokka xa yow lekk mu ne lu tax man ndax da ngay jaam xërëm ku jaam xërëm man duma mën a bokka xa moom waajib bi nekkoon jaamu ma xaram de mu ne ki nga wàcce na mooy lan mu ne kooku suma yaay la sa yaay la mu ne waaw dafa màgget mu ne ko waaw mu ne dama gis bi nga ko saxal yàpp ba pare nga jox ko ndox dama gis muy yëngal gémmiñ bi la doo doon wax mu ne naka jëkk dafa ma doon ñaanal yal na nekk dëkkandoo yonent Yàlla Muusa ci àjjana yonent yàlla Muusa jokkoo loxo mu ne ma ko man maay nabillaah Muusa man maa si dëkkandu àjjana lu may toppatoo waajur kon mbokk ni ñuy góorgóorlu ni jaami yàlla ñu ne de waxkat yi dañuy ne na wax bu yàq mu ne ko weesu àdduna yàqul de ndax jante bi fu mu doon fenk ba léegi mu ngi fenk fu ba léegi amul tardement amul gërëf amul amul benn tardement te doomu aadama dafa am lu mu lu ko yàlla bind dafa ne aba xasitu aba xasituma annama xalaanaako abasan wa annakum antum laa turja'uun da nga yaakaar dama ne bind pour caaxaan lu mu yàgg-yàgg da nga mi fekk si lu mu yàgg-yàgg da nga fekk te sooy sooy dem ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم bi nga ñëw ci àdduna pare benn benn ngeen ñëw bés bu yàlla sàkk am na ku dem te portable lu am njëriñ doo ku dem na laa téléphone ni laa fekkee foofu foofu doo ne waaru de loo bare bare maqaama sa laaj naka na suuf sa muurakaay naka na suuf koy àndal kenn du sa jabar du sa doom du sa alal sa alal bi nag dina wax ak yow balaa nga dem sa borom woo de demal fi nga mut ci àdduna fi nga may bàyyi sa mbubu rafet yi mébul yi yëpp dañuy wax ak demal fii nga ñu nga ñu wut ci àdduna fi nga ñu bàyyi yi nga xam sama mbokk yi nga xam ne bëggul woon ñu lekk ñoo koy lekk soo dem suñ ci mooy yàlla yàlla duma suñu tiyaab suñu defee lu baax tiyaab bi ñoo ko moom léegi nag bànneex bu ëpp na doole peine bi am ëpp na doole soo waxee xaal allah ñu daw la xaa soo ne affaire politique wala affaire caaxaan ñëpp fekk si la eh, waxtu ji wu bi jot na ñu ngi borom kër gi tabaarakàlla jaamu yàlla bi lu mu seede ci yow doy na sekk ndax doom eh, doomu aadama su génn àdduna suñu borom xam na sa jëf mais dana yebal ay malaaka ñu ñëw déglu dëkkandooy lan lay wax ci yow alhamdulilah rabbil alamin yàlla baaxee na la saa bu ñu ñëwee fii lu neex la ñuy dégg suñu noppi ndax même sa xaj da nga yàq da nga boo ñu ne sa xaj bu baax la waxtu ma sa goro suñu doom nga dénk denc suñ ñëwee dégg sa turu baax dafa ñuy def kontaante bu baax a baax ñu nga ñaan suñu borom adressé bi ñu la bi ñu la yal na sax ci yàlla adressé bi ñu la adressé yal na sax ci yàlla yal nañ yàlla may mujj ba rafet yal nañ yàlla may suñu kaddu bu mujj ba ne ko laa ilaha illa allah muhammad rasulullah sallam lu ma yàq ci olof bi ngeen baal ma àq ndax kaa xajal laax ñoo ko bokk bokkul man jaaxeen ke la lomay demee tàppale ci wolof rek salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. mooy Ahmadu Bamba alhamdulilah rabbi alamina eh, chaque année dafay ñëw dëkkandoo la doomu kilifa la suuf bu baax meññante fa lu baax day génn suuf bu bon meññante fa lu bon day génn yàlla day la mos a ci loolu ñu ngi leen a bisimilah. jërëjëf waaw yow sax samay samay a ngi nii samay doomi ndey a ngi nii madame la présidente daayira bi mi ngi nii toog ànd ak délégation babar ñi sa wuy si nañ ñu la elle est te mi ngi ba bar ñi ñëw wuy si ñu jërë ngeen jëf ajaaja bu jóob a ngi nii toog fii moom bu ma limee rek juum samay xarit samay doomi samay yaay ngi nii ajaa sufaal nga xam ne macha allah Malick kontaan naa walaay maa kontaan kontaan naa si yéen. walaay kontaan naa loolu mooy loolu. yaa ñu ko yaa ñu ko jëlee. kontaan naa. يا برد أحرار أراد

إلى عباد كانوا أحيار وأعرار يا أكرم الكرامات يسألوا يا بني عن عن سؤول صار أحد

jiw waaye ñëpp ñi fi képp ki fi teew tey kilifa nga. wanne ñi fi teew képp ku fi teew rek kilifa nga. gis naa la yéeg naa la maa ngi lay sant. gis na la yéeg na la mu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla. ñi fi ñu baax lañu. ñi fi teew ñëpp ñu baax lañu. maa ngi jiital ci nuyo bi nag. jiital ci nuyoo bi nag. suñu sëriñ yu baax yi nga xam ne teew lañ ci yu baax yi toog. di ñaan yàlla yàlla na guddal seen fan. di ñaan yàlla yàlla yàlla guddal seen i fan. yàlla may leen wér. yàlla may leen wér ak wérle. ñu baax lañu ñu. baax lañuy ñu yéeg njaboot gi la ñu. ñu yéeg njaboot gi la ñu ngi nuyu euh, Serigne Cheikhouna Mbacké. ñu ngi nuyu Serigne Cheikhouna Mbacké. di di ko ñaan mu ñaanal ñu. ni ñu ko doon defee di sàkku ci moom ñaan mu ñaanal ñu ba déwénati nu mu ko daan defee. ko ñaanal yàlla guddal fanam. di ñaan yàlla yàlla na guddal fanam. yàlla yokk yàlla yokk xam-xam buy ko. yàlla dëgëral taxawaay bi. yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam. li ko wax yëpp dëgg li mu wax yëpp waaye moom rek baax. waaye moom rek moo baax baax boppam. fii ci la nekk. fii ci koñ bi la nekk. képp ku fi xewle. képp ku fi xewle nag. ak xew bu mun munti doon. da lay taxaw da lay taxaw moo tax ñu ko gisee rek suñu xel day dal moo tax buñ ko gisee xel yi gën a dal jamono ji xat na lool jamono ji xat na lool ñëpp xam nañ ñëpp xam nañ ko kenn amul jot fi mu nekk nii téeméeri programme mu ngi ci toll nii téeméeri programme mu ngi boppam bi waaye mu bàyyi lépp ñëw toog waaye day def wande day def ni lii moom du ko faral di tardé lii moom du ko mës a tardé parce que yëfam a lu mu xat xat xat dina déplacé lu mu xat xat xat xat mu xajal ko ci mu seede ci sedd yu rafet mu seede ci sedd yu rafet ñaanal ñu ñaanal ñu bu ngoonee encore mu ñëwaat bu ngoonee encore mu ñëwaat noonu lay def neuf ans ren kon nag ñu ngi koy sant bu baax a baax kon nag ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal yàlla di ci teg nag goro yi di ko teg nag goro yi ñooñu moom moom di ci teg goro yi di ci teg goro yi goro yi ñu baax lañu goro yi ñu baax lañu ñoom nag ñoo waral lii yëpp nag. lii yëpp nag ñooma parce que ñooy way jur Asta Touré Asta Diakha bi. ñoom ñii ñoom ñoo waral lépp. ñoom ñii ñoo waral lépp. ñu nekk nag ñu baax. ñu nekk nag ñu baax. ñu am diine. ñu am diine. ñu am xam-xam. am xam-xam boole ci. te man xam naa ci dara. te moom mii xam na ci dara. kon nag di leen ñaanal ñoom tamit yàlla bàyyi. kon nag di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal seeni fan. ñu nekk fi ba ci kanam ñu ñu nekk fi ba ci kanam yàggale na tete di ñu encadré ci journée di ci diini ji ak tarixa bi ak journée bi ak journée bi parce que daanaka defar nañ ko ba pare daanaka defar nañ ko ba pare yëf yi bu yemoon fii rek sax yëf yi sax bu demoon fii mu neex dina daal di sotti wallaay kon nag ñu ngi leen di sant bu baax nag ñu ngi leen di sant bu baax euh, ci seen kanam nag ci seen kanam nag maa ngi leen di seedeel aussi. moo ngi leen di seedeel lii muy bëgg a wax. ki nga xam ne muy euh, Astou ki nga xamante ne moom ngeen ko jox mu denc ko muy aja Astou jaxa bi. muy seen doom. muy seen doom di seen jarbaat di seen rak. di seen jarbaat. di seen doom di seen jarbaat di seen rak. yàlla boole ñu. yàlla boole koog moom. man rëccuwuma li ak moom. nee na rëccuwul lu mu àndewoon ak Astou Touré jaxa bi. ànd ak moom ba tey. li mu ànd ak moom ba tey. daanaka lii. daanaka lii takkusaan Seydina Mohamed bi idéem la. yéeneem la idéem la. moo ci def ay xalaatam. moo ci def ay xalaatam. def ci euh, cawarteem. def ci cawarteem. yoo xam nga ci dara. man xam naa ci dara man mii. kon nag di ñaan rek ngeen ñaanal ko. di ñaan rek ngeen ñaanal ko. Ah, moom day seral na xolam. seddal na aussi xelul sama. seddal na xolu famille bi tamit. ñëpp ñu ngi koy ñaanal. ñëpp a koy ñaanal Asta Touré Diakha bi. loolu maa ngi leen koy seedal. loolu mu ngi koy seedal goroom yii nag. di ñaan nag ngeen ñoo ñaanal tamit. di ñaan tamit ngeen yokk ñaan yi gën koo ñaanal yàlla moom digganteem ak soxnaam. ñaanal ko ñaanal njaboot yi ñaanal ko ñaanal njaboot gi. ñoom ñi maa ngi leen di sant bu baax a baax. ñoom ñi ñu ngi leen di sant bu baax a baax. moom kilifa bi encadré journée bi. moom kilifa gi encadré journée bi. moom ci boppam sax wérul. moom ci boppam sax wérul. déplacement am bareetul. déplacement am bareetul yombul. waaye bu bis bi jotee. waaye bu bis bi jotee. dina def lépp ba jóg taxaw. déplacé dina def lépp def kocc kocc rek ba jóg taxaw ñëw taxaw yi njaboot gi. ni mu ko doon defee tamit mu defee. ni mu ko daan defee toujours mu di ko defee. kon nag ñu koy sant bu baax kon ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla. di ñaan sëñ euh, Seexuna mu ñaanal ñu ko. di ñaan sëñ naa Mbacke mu xaadimal Moustapha mu yokk ñaan gi ñaanal kilifa gi. ndax yàlla bàyyi ko fi suñu. ndax yàlla guddal fanam. gën ko fi gën a bàyyi. moom ak ñi mu àndal ñëpp. moom ak ñi mu àndal ak njaboot gi yëpp. yal na ko yàlla def. yal na ko yàlla def. di ñaan tamit. di ñaan tamit. di ñaanal samay mbokk. di ñaanal ay mbokkam waa Cubalen laaw yii. di si jiital sama papa gi di ñii jiital papam dëkkandoom xaritam démb. muy sama xarit. nee na xaritam la. moom laa dese ci ay papa. moom la dese tey ci ay papa. magi papa papa la rakki papa papa la lu tax dafa yàgg ak papa. muy sama papa nag. muy baayam nag dëgg. taxawu ma nag. taxawu ko. moom moo ñaani ji woon as. nee na moo ñaani woon as sa tuuti jaxa bi. kay yooyu yëpp di jar a leeral. loolu rek dafa mat leeral. avant astu di ñëw tamit. avant astu di ñëw tamit. yàlla def. yàlla def. mu mu mu tette ñu. mu tette leen. ba fi ñu toll nii. ba fi ñu toll nii. kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla. may ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla yokk wéram. yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam ak kanam. yàlla na yàlla yàggal fii ba ca kanam ak kanam. di nuyu goro yi. di nuyu goro yi di nuyuwaat goro yi. dama goro bële toog dama goro bu ñaawul bële. nee na gorom bu ñaawul bee. toog borom bële kaara bi kële. borom moo denc sama rakk bi ñu na moo denc rakkam. ñu naan batuuli. ñu naan batuuli ba. moo topp ci man. moo topp ci moom mii. waaye moom mi daanaka taaw la ci kër gi. waaye moom mi taaw la ci kër gi. lépp lu fi xew day ñëw taxaw. lépp lu ñëw taxaw. taxawee aussi daf ñuy taxaw. daf leen di taxaw toujours nag. man ak sama mag bi nga xam ne ci laa topp. nee na moom ak magam bi mu topp. moom daanaka moom mooy taawu kër gi. daanaka moom mii moom mooy taawu kër gi. sëñ Bas. sëñ Bas. kon nag ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay. di nuyu nag suñu këru sëriñ. di nuyu nag seen. suñu këru sëriñ. seen këru sëriñ. muy Issa Touré. Serigne Issa Touré bu Cheikh El Hadj Abdou Aziz bu sëñ Mansour Sy. teew na fi. nee na teew na fi. parce que Cheikh Niang mu ngi fi. ndax Cheikh Niang tàggkat yonent bi mu ngi fi. te ñëpp xam nañu diggante. te ñëpp xam nañu diggante. Issa Serigne Issa Touré. Serigne Issa Touré. ak sëñ Cheikh. ak sëñ Cheikh Niang. ak kii di Serigne Correa. ak Serigne Correa. bu sëñ Mansour. xam ne moo yore fédération yi. xam ne moo yore fédération sopp sopp nabi sopp nabi. sëñ Korya muy ku baax. kon Korya nit ku baax la ñu ngi koy nuyu. mu ngi fii ci biir nit ñi. mu ngi ci biir mbooloo mi. mu ngi may xamal ne sax dafa am dëj. mu ngi koy xamal ne léegi dafa am dëj. mu waroon faa teew. mu waroon faa teew. waaye mu ne. waande mu ne rek. xaaral ma jiite fii. xaaral mu ñëw jiitu leen fii. buñ ko gisee rek mu daal di bu ñu ko gisee rek mu daal di yeeweeku. di nuyu sama mbokk cubaleel yi nag. nag di nuyu nag waa mbokk cubaleel laaw yii. yi samay eh, mag ak samay moroom. ne ay mbokkam ak i moroomam ñoo fi toog. ñi ciy ràññee kii di Mamadou Birane Watt. ñi ciy ràññee Mamadou Birane wat moom mooy suñu kilifa. nee na mooy seen kilifa. sa dëkk ba. ca dëkk ba. département de Podor. autorité autorité la fa. autorité la fa. waaye dëkk ba aussi ràññee nañ ko. waaye dëkk bi ràññee nañ ko. li may wax nii waa dëkk bi mën nañ ko seede. li muy wax nii waa Cubalel mën nañ ko seede. nekk na hôpital principal. nekk na hôpital principal. nekk nekk CTO. nekk CTO. moom moo yoroon ñaari hôpital yooyu. moo yoroon ñaari hôpital yëpp. dëkk ba képp ku jógee dëkk ba. dëkk ba képp ko fa jógee. dugg ndakaaru gii ñëw di tawat. ñëw tawat. moo lay jël biir këram. moo lay jël biir këram. yóbbu la hôpital. yóbbu la hôpital. faj la ba nga wér. faj la ba nga wér. nga génn ñëwaat këram noppalu ñëwaat këram noppalu. mu waajal la nga daal dëkk ba. moo nekk kii nii Mamadou Birane Wat. mooy Mamadou Birane Wat. waaw. te ñu koy euh, di sàkku ci yéen ñaan di sàkku ci mbooloo mi ñaan ngeen ñaanal ko mu wér yàlla yàlla yàlla guddal fanam moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal xam li bëgg yàlla na yàlla defal di nuyu mbokk yëpp ñi nga xam ne ñoo jógee ci bëleel ah, di nuyu mbokk yi nga xam ne ñëpp ñoo jógee ci bëleel laaw di si jiital nag kii di imam di fi jiital nag kii di imam ki ñu jiite tey di fi jiite tey ci subaar bi mu nekk sama xarit. mu nekk xaritam. mu nekk borom xam-xam. nekk borom xam-xam. mu nekk oyof. mu nekk ko oyof. mu ngi dëkk fii ci kanam sans fil. mu nekk fii ci ginnaaw sans fil yi. ci sans bi la dëkk. ci sans fil dëkk. jàkk bi fa nekk moo koy jiite. jàkk ji fa nekk moo koy jiite. nit ñi wóolu ko lool. nit ñi wóolu ko lool. ñun tamit ñu wóolu ko lool ñun tamit ñu wóolu ko lool. ci xam-xamam. xam-xamam. ci pasteefam. ci pas-pasam. ci bëgg nit. ak bëgg nit. lépp lu ma yëkkati. lépp lu mu yëkkati moom Samba Ba. dina ci def ñaan. dina ci def ñaan. dina ma woo. dina ko woo. waxtaan ak man. waxtaan ak moom. déplacé ñëw. déplacé wu ñëw. fi mu nekk nii dañ leen a woo. fi ñu ne dañ leen a woo. dañ leen woo fii ci mairie bi. dañ leen a woo ci mairie bi. génne na këyit bi sax won moom. génne na këyit bi sax won leen. actuellement ñoom ñëpp ñu ngi foofu. actuellement waa Cubale lépp ñu ngi foofu. waa troisième âge Géejawaay yëpp waa troisième âge Géejawaay yëpp ñu ngi foofu. ñëpp la ñu woo ci mairie ba. ñëpp la ñu woo ci mairie ville. ci Aliou Sall moom ci la bokk. moom mi ci la bokk. waaye dafa ne. waaye bàyyi lii dem foofu bàyyi lii dem foofu. looloo ko indi nii. looloo ko indi nii. mu nekk ku baax moom tamit. mooy ku baax Sall yàlla na yàlla fay. yàlla na ko yàlla fay. yàlla guddal say fan. yàlla yàlla guddal say fan. di nuyu tamit dëkkandoo yi. di nuyu nag dëkkandoo yi. waaw dëkkandoo yi ñu baax lañu. dëkkandoo yi ñu baax lañu. am na ñu fi jot a wax. am na ñu fi jot a wax. waaye ñoom ñoo baax. waaye ñoom rek ñoo baax. parce que yàgg nañu. yàgg na ngeen. depuis Baye Gaynde. depuis Baye Gaynde ba bi 67 ba léegi. ba léegi. ba léegi nii. waaye ñoom bi ñu fi ñu jàppoon ba léegi bàyyiwuñ. waaye ba léegi fi ñu jàppoon ba léegi bàyyiwuñ. kon li ñuy wax ci man yëpp. moom li ñuy wax ci ñoom ñëpp. moom lañ ci ñoom la ne. ci ñoom la ne. na yàlla def ñuy yàgg teewe bis bi. parce que mbokk yi rek bu ñu ñëwoon. mbokk yi kese bu ñu ñëwoon dina wéet. te dëkkandoo yi ñëwuñu te dëkkandoo yi ñëwuñu du am sens. dina am lu manqué. dina am lu manqué. waaye ñëw nañu. ah. waaye ñëw waaye ñëw nañu. waaw. waaye ñëw nañu. nag yàlla na leen yàlla fay. kon nag yàlla na leen yàlla fay. yàlla defal leen yiw. yàlla na yàlla defal leen yiw. yàlla dëgëral taxawaay bi. yàlla defal dëgëral taxawaay yi. ñi fi ñëw nag di sàkku ñaan. ñi fi ñëw nag di sàkku si ñaan. mooy ndongo. ñii parti ñii seen parti. mooy seen parti. waxuñu tur wi nag waaye ma waxal leen ko xanaa. LD. voilà mu ngoog. nee nañ booy ñaan lu sëñ Babacar doon wax nee na da ngay tudd li ngay ñaan. sëñ Babacar nee na booy ñaan da ngay tudd li ngay ñaan. waaw nga joxoñ ko. nga joxoñ ko mu barkeel. ko am yitte muy baneen kon nag ñu ngi leen koy dénk kon nag ñu ngi leen koy dénk ñu ngi leen koy dénkaat ñu koy dénkaat comme yéen bokk parti comme yéen a na leen yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla jubale leen ndax ah, dafa am loo xamante ne sàmb mi dañ bokk bokk boo xamante ne ñaari côté ndax tey jii ñu ñoo taxawee mbiru village bi di affaire fête de tey jii am membre yoo xamante ne ñu ngi village ba dañu mayoon gaal goo xamante ne moom la ñu waroon réceptionné démb te mënuñu fa jóge tey tey ñëwaat ñun nag yàlla dogal ñun ñii yàlla téye fii mënuñoo dem. moom ci fedd kees la bokk mooy mooy secrétaire général bi lépp luy dugg ak luy génn ci moom lay duggee ci moom loo koy bind. et président nag dem bàyyi ñu fi ñun membre yi ñun surga yi kon nag di leen seedeel ne. moom tey jii bu ñun wa boo leen waxee yéen ñun ñu wax defe naa ñëpp dinañu confirmer ne Samba ku baax la Samba baaxam foo ko natt weesu na kon nag dañ koy ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko sagoom e eh, yàlla bàyyi ko barkeel njaboot gi e yàlla bàyyi fi di yéen ci kanamu njaboot gi bàyyi fi tamit kilifa diine yi tamit. walladi kulla yawmin sha'nu jaari ya akramal kurama ya arhamar ruhama أدناني وأدنى فلي عجل إغاثتنا يا خالق الباب أثوابي مدنسة بماء عفريك أرجو غسل أقداري يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحمن Cool. Yesu

الإسلام ممونني صلي صلاة تناجينا بها أبدا جميع الأهوال والآفات الله صلي صلاة بها تهدي لنا أبدا جميع أركاتنا يا الله ممونني صلي صلاة بها ربي تطهرنا صلي صلاة بها ربي ترفعنا أعلى من الدرجات ربي مولاي صلي صلاة بها ربي تبلغنا أجل أقصى من الحياة يا الله يا الله يا ربي آمين في الخيرات جملتها عند الممات وبعد الفوت

صلي على لوحك المحفوظ أشرف من كل الخلائق يا رحمن يا آمين تلك الأمانة آمين تخفي من تكون لك

إلهي يا ربي حسيدتنا وسيلة للمنى يا الله أفنيت يا الله آمين فاغفر لنا ولمن من بيننا نسب من جهة الدين أو في ديني الله صل على ساجدي قبل الولا فألا بسمع مئة عام ربي الله الله واشكرا على ربي الله Domba salamu la alikaba data kila kanule mala ilombe Domba salamu la ila kanumari la ila Domba salamu la la ila كانوا غدي لا إله جمع سلام لا لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله وصل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما صرح ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ala yàlla ma Madina

sallu sallu sallu salaamaaleykum salaamaaleykum Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ماد فلا كن يرى لسواه وهو السلام فلم يزل متقدسا ذاتا ووصفا في كمال الغناء سبحانه الوصف في حضرتي عن كل ما لا ينبغي للغلام حقا نداء الكبرياء لو بري الله فما أرضى المنازع فيما أشرع حقا رداء الكبرياء له فما عبد المنبع فيما أشرع وهو الحبيب لنا وليس يؤد بري الله وليس يؤد في أرضه حفظ ولا بسماء هو اللطيف يوي الله لما يشاء واقعة من فوا بلطف من الكفاء بري الله أصل العليم بكن عاليا كافيا في كل ما نرجو أو أخشى الله بر يلا أنت الدليل الفرد والسمد الذي أنت الذي يدور كل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا ربنا يا رب يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ويلا يا ربنا يا رب يا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ويلا يا ربنا يا ربنا يا رب يا رب بذات العلية باسمها يا يلا بمصون سر فيها حساو يا رب بذات العلية باسمها بمصون سر فيها حساو شكوب المسلمين جنيب وحبسهم من بلطيك يا يا الله إيش قلوب المسلمين جميعهم وحبسهم من بنصرك يا وكل مصر الكيد koy dawoo bur yàlla ah. wiirari wa ilaaw ma ardaaw wa ala habibika man saraa fi laylati lilaq fattaja al ula lisraaw ah. wa aska salaatin ma salaami mubtada amin ya rabbal alamin ma ashraqat ardun waali sanaaw yow yàlla walaali wala saani maada inna gaadi daraati fastujiba duaa fastujiba بحرمة الصفات والأسماء صل على إمام الأنبياء بحرمة الصفات والأسماء صل على وصفة الصفات والأسماء ربي وآله بحقيقته مقدار الذي عند ربي سيدي حاج مالك سنين أم العبادة في الأفاة توبة عبد داره الواتي المكبر الفنبالا ورحم بعدين وحيا سبر وزهد ساق القرآن يد الورد ورحم بعدين وحيا سبر وزهد من واحد ورحم معدين وحيا يا سبر سخد ساق القرآن

Allah kaw yarjo yarjo yarjo yarjo min Allah aw nan ñu ngi koy gërëm ci teewaayam délégation yi fi teew nag bari na délégation airport travel tour teew nañ fi dirigé par Moussa Sarr Serigne Cheikh Niang nee na mi ngi leen di nuyu balaa maa continuer ma nuyu ñii tagg Seydina Mouhamad waa kër Seydina Muhammad yii sama sëriñ ba sama soppe ba sëriñ Mbay Si Abdul Aziz nee na nit ku nekk la ngay ba nga yor doo ko dekkiwaale ba mu des ñiy tagg Seydina Muhammad nee ëllëg grade boobu la ñuy dekkiwaale ndax jaraa iruna tulxaa bi jaay Muhammad yi yàlla yàlla cheikh guddal say fan wéral say cër ak képp ko ànd ak yow ci barke yonent bi sallallahu wa sallam ñi ngi sant Fatoumata Yaay Boy Ly secrétaire général LD Pikine Aliou Ndongo gis nañ ko fi chargé des affaires religieuses et gis nañ ko fi conseiller municipal gis nañ fi aussi Moussa Kassé mu jiisee délégation aéroport ànd ak aw bopp ñi ngi sant ñi ngi gërëm wax dëgg yàlla fi ñu waroon commencé muy suñu maire de la ville muy Alioune Sall yónni na fi délégation bu mag bi nga xamante ni suñu xarit suñu soppee Mika Ba moom moo ko jiite ànd ak soxna Fatou Sall le ministre de l'environnement Abdou Karim Sall aussi yónnee na fii délégation bu mag a mag bu mun naa ma sow jiite ak Dibor Maroon mhm. kii moom environnement la bokk nee na ñi ngi sant di gërëm dawaa yi fi teew yëpp soxna astu nee na mi ngi sant ay gorom mi ngi sant ay njëkkeem mi ngi sant ay frère am mi ngi sant ay sœur am ku ñu tudd ak ku ñu tudd wax naa ko ñu njool ñu gàtt ñu xees ñu ñuul donc ñëpp dugg nañu ku ñu tudd ak ku ñu tuddul yàlla gis na la yàlla yàlla fay leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw waaw waaw groupement Fawade Wele soxna Lalla ñëpp ay nu maan ñoom ñëpp ñëw nañu gis nañu leen yàlla yàlla fay leen yiw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa gis nañ fi suñu xarit suñu soppe imam Masila Kane si moom laa déggoon mu ni muusu garage du yàgg mu ko mu nekk chauffeur nee na muusu garage du yàgg mu nekk chauffeur imam Masila yàlla yàlla defal la jàmm yàlla yàlla defal suutura ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël moom moo ko joxe waa daayira asek naa ñëw nañu waaw waa daayira naa ñëw nañu ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm Cheikh Kandji Seck moom moo ko jiite ànd ak Maguette Diagne ak Fatou Sakho sans plus tarder di jël kàddu jox ko imam mu defal ñu ñaan ñu jox suñu doom jëlee aadama ba mu mu mu mu mu jàng alxuraan suñu noppee ñu eggale programme bi jox imam Masila Kane mu commencé. nee na ndax imam sàll dafa dem léegi ci jàkka ja dem jiite ji jullit ñëpp. nee na bu fi imam Sall nekkul bu jël kàddu. nee lépp luñ fi war wax rek moom moo ko war a wax. man su waxee ci kàddoom lay waxee. nee na moom su waxee. ci kàddoom lay wax. waxeewuma sama nee na waxeewul ci kàddoom. jëfeewuma sama kàddu. nee na jëfeewul ci kàddoom yi. nee na mi ngi nuyu sunu honorable bi toog di alxaaji Mika Ba. nee di nuyu alxaaji Samba Ba mi nga xam ni mooy borom këru soxna Astu. nee na di nuyu Serigne Moulay si mi toog mi nga xam ni moo fi Seydi Alxaaji Malick jóge Tiwaawan. nee na mi ngi nuyu soxna Astu Ture mi waral jotaay bi. boo nuyoo ñooñu rek. nee na nuyu ñoom ñëpp. di sant ñëpp. nee na mi ngi sant ñëpp. nee na mi ngi gërëm ñëpp. nee na soxna Astou Touré. yal na yàlla yàggal taxawaayam. si la nee na yal na yàlla yàggal sa taxawaay. boole ko jëkkër. yal na la yàlla boole taxawaay bi yàgg gi wér gi yëpp yàgg sa borom kër mboolem fi teew. mu ni kon. di ñaanal ñëpp. imaam nee na mi ngi ñaanal ñëpp képp ku fi teew. di sant ñëpp. nee na mi ngi sant ñëpp it. gërëm ñëpp. nee mi ngi gërëm ñëpp. wax ji. nee na kàddu gi. mën naa ñàkk a nee na ñàkk. ndax. mu ni ndax. imaam. imaam. xaw dina ñëw léegi. ndax dina ñëw léegi. xaw ma ñëw léegi. ndax dina ñëw. di nuyu délégué de quartier. nee na mi ngi nuyu suñu chef de quartier. bu baax alxaaji. Diallo mi Abdoulahi Diallo. nuyu ñëpp. nee na mi ngi nuyu ñëpp. Eh, bu loolu na bu loolu wéyee. maa ngi nuyu tàggatu yonent yi. mi ngi togg waa ahlu bayt rasul ñoom Cheikh Ahmed Tidiane ña toog. ndax Cheikh mii. nee na Cheikh ña toog. yàgg na ak daayira bi. nee yàgg na ak daayira bi. bu ngoon bu jot bu fi ñëwee. nee na tàkkusaan bu jot bu ñëwee fii. buy jàng buy jàng. xamul nit ñi bëri. xamul nit ñi ñu ngi bëri. xamul nit ñi bari xamul ni nit ñu bari ñu. la ko war moom dana ko la ko war day jàpp ni gàmmu lay def. kon nag nee na kon Cheikh. yal na yàlla guddal sa fan. yal na yàlla yokk sa xam-xam. yal na yàlla yokk sa martaba. nee na lépp loolu yóotu rek yal na la ko yàlla yombalal. di nuyu Cheikh Massila Kane. nee na di nuyu xaritam soppeem oustazam alxaaji oustaz Massila Kane. Oustaz Massyla imaam nee na yàlla na yàlla guddal sa fat nee na yàlla yàlla yàggal sa taxawaay. loolu dañ laa jàmmoon. na di nuyu Modou Boussa mi soog a agsi léegi. kooku dama ko sama bët da ko jël ndax gisuma ko woon. nee na bëtam day da jël. su ma ko gisoon. nee bu la teeloon a gis. ñi ma ko ñi muy njëkk nuyu ci lay bokk. nee na yow yow lay njëkk a tut. mu ni ndax. du léegi. du léegi de. yàgg na loolu démb la. kon nag mu ne kon nag. ñàkk a gis. ñàkk a gis. moo tax moo tax. tudd na ko woon tudd na woon. waaye yàlla yàlla yàggal taxawaay. yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay. yàlla guddal fan. yàlla yàlla guddal sa fan. Alaaji Sarr mii. mu ni Sarr mii toog. fii. fii. war na fee toog. war na fee toog. lii may wax nii. nee na lii muy wax moom imaam Sylla. ko bëggoon jox léegi mu wax ko. daf ko bëggoon a jox imaam Sarr nii mu wax. ndax moo ma ko dàq wax. ni ndax imaam Sarr moo ko dàq. kon man. mu ni kon moom. Eh, li ma nii rek. nee na li mu fi man rek la. waaye bu fekkoon ni moom kese laa koy jox moom da koy jox Sarr. kon maa ngi koy jégalu. nee mu ngi lay jégalu. ci kaddu yi ci kaddu gi. ak wax ji ak wax ji ndax. mu ni ndaxte. yaa ma ko dàq wax. yaa ko ko dàq. yaa ma ko gën a a wax. yaa ko ko gën a. Adama ba mii doomu Samba ba mii la ak soxna Astou ñi woote bis bii mu jàngal ñu alxuraanul karim sëriñ Adama bismillah. salaamaaleykum wa rahmatulah. aouzu billahi rajiim. بسم الله الرحمن الرحيم بثنيه daaba ولا تطعهما allahu akbar lii lu rafet la woote conférence ñépp toog sa doom ji nga jural sa bopp toog xare alxuraan ji loolu day na ndam loolu day na xol bu set day na xol bu rafet soxna soxna astu yow soo wootee bisu Seydunaa Muhammad nit ñi dañ ko war a gëm ndax da nga fonk Seydina Muhammad nee na fa xale ba song eh, eh, moo yéeme kii nekkul ñëpp a koy song ci wajju rek la wax adama yàlla yàlla guddal say fan yàlla yàlla wéral say cër barke alxuraan yàlla na ko yàlla jot si yow ci barke yonent bi sallallahu alayhi waaye nag nii nga mel du ci yow de ci say wajur yii la Seydil Hadji Malick radiyallahu taala dana ko Maodo yaay kan mun bàyyi leen ba ma màggale waaye aadama mii ni mu mel woy juree la moom yàlla na ko yàlla may ay xale yu ndaw ba mu nàmpatal lañ ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu fekkee ko